salaamaaleykum. waaleykum salaam. oh la salaam asalaamaaleykum. ça va soxna yéen a ngi toog. ça va bien. ah sëñ bi na nga def. sëñ bi ça va soxna si. sëñ bi na nga def ça va. xaru fookaay laa bëggoon. ah kooku da ngay dem marché Colobane. ah marché damaa jaawle. fii lan lañ lan lañ fi jaay ay légumes wala ay xaj wala ay bëy. ay mbaam-xuux foog see tuuti xar tuuti bëy. ah xam naa sûrement jaay mbaam-xuux. waa kii du tuuti seen. mais xar bi baax na de. nduróo noonu de budul moom di doon. boobu noonu de boobu noonu. waaw. kooku mooy euh, Papi Dieye moom maa jox ko joxe cinq cent mille la waaw cinq cent mille la waaw ah ah bee nag boo amee trois cent ah trois cent d'accord léegi kon euh, xaaral ma fay la bi hmm. man parce que man waxaale bëgguma ko ay <laughs> eh, waxaale nii bëgguma ko man dama am xaalis ñëw rek dama la koy jox bi fee dem ah, ah, ah. a jàppa si nii xoolal bum ko bum bi ko si cinq cent mille yi ak paaka buñ koy rendee léegi ñëw leen nga livré ma ah, da nga wàññi zéro yi non non xam nga fee bu nekkee cinq cent mille fii Sénégal cinq cent la ak maa war a wax lu leer ok ba mu xool cinq millions ma jox la cinq cent mille sëy eh dugal nga yóbbu ma sama xar bi am ah, kii mënu ma eh bu fi ne di yooxu nit ñi ah. eh, bu ma dépassé de yow yaa ngi may dégg. xoolal dala xaar bi nga ñëw yeewal ma ko parce que li sama copain laa ko jëndal. douzième gaynde takkal. a fekk premier gaynde si dëkk. non mais xaaral il faut yaa ngi douzième position nga ne fii di bandi bandi. maa ngi tàng nag maa ngi tàng. soyez rationnel. maa ngi tàng euh, nanu nanu ànd ak ma soxna si. Eh, wuy ma maa ngi tàng wuy ma euh, wuy ma. Euh, eh, li eh, nga ma tiimee yow sukkal teel a waxal fii su waxal. ngi fi. comme def ngeen def kon premier tour bi ñu jàll. premier jàll leen. looy jabaate. ah léegi. dégg naa lépp gis naa lépp. xam naa ne da nga bëgg a jënd sa waajur xaru tabaski. sama far ah, sa far ku baax nga ku baax nga. léegi sa far bi ngay jëndal xar. sama waajur jënd ma fa sama xaru leen te nga bëgg ma jënd laat leen xar. waaw loolu ba tey sax complication la indi mais ma. est-ce que daa ñor comme potu laaw. mat la ah, bi ngay tëdd amul dara coton yi sa sa bopp bi pour la. waaw dégg suba na nga fi ñëw. dinaa la jox xar bu rëy bu rafet. déedéet bëgguma xar lu rafet de. bëgguma xar lu rafet. nga xool ni ma ñaawee xool ni ma ñaawee. waaw naa jënd xar bu niroog yow. Hmm, bu am dentition yu rafet. rafet. allez yooyu à la prochaine. waaw mais suba bonne heure. ah midi. à la prochaine. eh eh na nga teel a ñëw de na nga teel a ñëw de. <laughs> xale bi ma ko gisee Sadio la sama xeet. Sadio man. Sadio bi leen si. Ah, gaynde nduróon nañu bi douzième kay nee la de. nduróon nañu berber. berber ci jëmmi boppam. Mm-hmm. Mm-hmm. période yi nga xam ni la xeex bi tàmbali. mais j'ai vu un tarab ici. vu de beaux ici. oui. c'est à toi de voir bon je sais pas moi donc. Euh, je sais pas. d'accord je te fais signe. Euh, euh, comment vous allez. ça va monsieur. ah man xaar laa bëggoon. xaar wala xaal. xaal xaal moom jaay ñu ko fi. xaar xaar xaar. mouton un mouton. ah, ah mouton ah. waaw waaw am na fii yu bare sax. Ah, c'est à combien les moutons. ça dépend ci bi nga bëgg. celui-là j'aime bien. 500000. 500000 ba na 600000 sax moom xar moom. 600000 le dernier prix c'est à combien. 500000 boo indee 500000 non le dernier prix c'est 400. respecte les gens là d'accord.

C'est bon, j'ai envoyé. C'est un numéro favori. D'accord, Donc, vous allez, me l'amener. Ma voiture, elle est garée dehors. Vous pouvez hmm. me l'amener Lors du problème, vous amener votre mouton. On m'appelle. Oui. Wow, oui, c'était 3000 euros, Oui, tu peux faire par Orange Money, bien sûr. Oui, France, Sénégal, tu peux faire en Orange Money, en, transfert. D'accord. Donc, je, Ok, merci, ok maa ngi donc euh, vous vous vous amenez le mouton waaw. kon orange money daal dañuy transfert diggante France ak Sénégal. dama la orange money moo wër ak kenn sonnatul am na lu cent mille fii. Hmm. trois cent mille. loolu moo tax munoo ma ni ka cinq cent mille mu fay cinq hmm, tubaab dafa gaaw a tubaab droit au but la xam. xaaral ma envoyé numéro bi crédit kottu euh, waaju baax ma envoyé si orange mu ne mu récupéré trois cent mille mu seddoo suñu moom ma ci jot di fay location mu ñu ngi ma booba ak léegi ci location bu ci jot oh lan lan yow dum naa oh barki alxu yow barki barki yonent bi eh eh, eh, eh dafa déglu ma man maa sama barki rasulullah dama lay wax benn affaire tey tey xool tey nga jot sama jikko waaw dafa nànk. non du non dama xam la laa soxla samay cinquante mille laa soxla damay fay location jàmm bala ñu may génn lu leer laa lay tagal ba ñu ma ci sala yaay ndeer Touré seet tëtët génnewu la ci ma fii